factures yi dina ko yëg dinañ ko fay dinañ yëg yokkute bi ci suñuy facture benn ñaareel bi ñun ñëpp dinañ ko yëg ndaxte lépp li nga xam ne dañoo soxla courant pour meññal ko pour defar ko pour produir ko lépp li nga xam ne dafa soxla courant njëgam dina yokk waaw bu ñu moytuwulee mburu dina yokk il va y avoir une cascade d'augmentation augmentation bi du yem ci courant bi loolu mooy dëgg donc ñëpp dinañ ko sentir ndox dina yokk gis ngeen bu courant coupé lu yàgg ndox coupé lu tax bu courant coupé lu yàgg ndox coupé loolu moo tax bu yóbboo ñu xam ne ndox dina yokk ñun ñoo ko nar a fay seen 94 milliards seen 6 000 milliards seen sàcc ak toje yooyu ñun ñoo ko nar a fay en réalité yokkute courant bi loolu lay tekki subvention yi ñuy subventionner les entreprises françaises à travers le TER à travers le BRT ñun ñoo ko nar a fay notamment à travers cette augmentation du prix de l'électricité c'est ça la vérité c'est ça la réalité ñu ñoom di subventionner entreprises françaises yi nga xam ne elles sont moribondes feebar am jafe-jafe ba pari ñun naan ñu nous on n'a qu'à payer la note c'est inacceptable mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg ñoo lànk ñoo bañ jërëjëf Didier loolu moo tax ñu ne kat ah am na solo euh, ñi nga xam ne ñooy woowee seen bopp aji bëgg réew muy patriote am na solo démocrate yi am na solo citoyen sénégal yi moo xam ñu ngi bokk APR moo xam ñu ngi bokk opposition moo xam bokkuñu fenn moo xam voté loon nañ Macky Sall moo tax voté luñ ko woon ñu ànd mobiliser wu ndaxte kat mënuñu luwaas bi cher ciment bi cher lépp cher wàññi woo dund bi nga naan da ko nar a yokk à travers l'augmentation du prix de l'électricité bi ci topp mooy bi yóbboo itam ñu xam ne président Macky Sall en augmentant le prix de l'électricité il est en train de suivre les injonctions du FMI et de la Banque mondiale 2015 déjà a Ndoye Seck ministre de l'énergie mu ngi doon wax ne Fonds monétaire international FMI mu ngi doon def des pressions à l'endroit du gouvernement pour mu appliquer lu ñuy woowe la vérité des prix vérité des prix mooy lu ñuy dund nii mooy yokk bàyyi subvention électricité bi yokk euh, bàyyi prix yi marché bi di ko réguler maanaam kon bu euh, bu baril bi yokkee mu yokk donc ça veut dire que ñun citoyen sénégalais war nañ tamit bàyyi xel bu baax a baax ci suñuy rapport suñuy diggante ñun suñuy réew avec les institutions internationales institution yooyu duñu ay mbokk institution yooyu duñu ay xarit institution yooyu nekkee wuñ fi lu dul privatiser privatiser justement en parlant de privatiser est-ce que xam ngeen ne ci biir Sénélec ci biir état bi on parle de réformer la Sénélec bu ngeen déggee réformer une institution fii Sénégal rek bu yóbboo ngeen ne privatisation en réalité augmentation bi benn jéego rek la fi jëm. dans quelque semaine dans quelque mois soreetul mooy la privatisation de la Sénélec ñu leen di fàttali ne yoon bu mujj bu ñu privatiser Sénélec musiba la woon Hydro-Québec Elio lañ ko joxoon mais ñu foxale foxale boo xam ne xëy na sax ngenn ñu ngi fii yàlla may na leen loo xam ne courant bi bu yokkee dinañ ko yëg waaye du métti torop kon nit ñi nañu génn mbokk yi nañu génn doomu Sénégal yi nañu génn ajjuma la ci ngoon à partir de 3 heures fii ak palais présidentiel ñu ngi leen di invité ku mun ñëw taxaw fii na taxaw fii ku mun taxaw Médina na taxaw Médina ku mun taxaw plateau nga taxaw plateau ba ci palais présidentiel. président Macky Sall dafa ne dafa yokk courant bi dinañ ko topp dinañ bërek moom dinañ xeex ak moom ba mu ne yokkeet maa yokkoon yokkeet. maa yokkoon yokkeet président de la république la ñuy wax. na na suspendre monsieur le président. suspendez cette mesure d'augmentation du prix de l'électricité. Monsieur le Président de la République, revenez sur cette augmentation du prix de l'électricité. Président nag ñu ngi lay artu te jàmm la ñu bëgg mbokk yi dama bëgg ñu dégg leen te jàmm la ñu bëgg lu tax ma ne jàmm la ñu bëgg 2011 fii Sénégal il y avait les émeutes de l'électricité wax dëgg yàlla président nañu mëm nañu musal bëgguñu une deuxième émeute de l'électricité waaye nag ñun duñu toog seetaan lu mu bañul ci mbir mi ñun duñ ko ci bañ waaye bëgguñu une émeute de l'électricité ndaxte à part la manifestation du vendredi dinañ continuer def ay manifestation